sëñ Bassirou Gueye mu nekkoon ex procureur euh, bu ki nga xam nekk euh, peut-être bu Macky Sall nekkoon na fi tey mu nekk li nga xam nekk moo di njiitu OFNAC il aurait reçu un terrain dans l'affaire affaire li nga xam nekk moo di Adji Sarr démb boobu ba tey euh, ñi ñi si di waxal ni allant dans sens arfan ana ba jàng nga si exactement peut-être pour clore li nga xam nekk ce débat. dama ne képp ku fi am terrain bu légalul. nañ la topp. su nekkee liggéey moom nañ la topp amul liggéey. mais Arfan. Euh, le président mi ngi nii tey liggéey moo xam ne da ma laaj wala da ma laaj ou bien. dama ne képp ku ñu fi jox terrain ci anam yu illégal dañoo war a nangu terrain bi ba pare ñu topp la xam ci yan condition lañ la jox ak boobu. bu fekkee ci dossier Adji Sarr bi. Yep, ñu fa am ay koppar il mérite la prison oui bien sûr dossier Adji Sarr bi képp ku fa am xaalis képp ku fa am kër képp ku fa ku fa am qui tu mérites la prison parce que war la tombe comme association de malfaiteurs complice ay complice lañu donc loolu taxul taxul taxul ñu wax taxul ñu wax te dossier bob une fois mu déglu ma bu baax dama ne dossier Adji Sarr képp ku fa am koppar képp ku fa am oto képp ku fa am ay bien ñu dem ba état du Sénégal leer ko ni que dossier tappale boobu ay nit laalee nañu fa ba ñu am ay koppar am ay kër am ay oto wala takk fa ay jabar dañ leen war a tëj ci kaso bi parce que hmm. association de malfaiteurs la ñu c'est des complices en sa que juge bi ci boppam moo ne Adji kenn yoole ko kenn kenn kenn kenn kiwuñu ko menacé au maintenant comment une personne peut bénéficier des privilèges de ce dossier là un dossier aussi banal et faux et faux qui a tué beaucoup de sénégalais Il y en Arfan am na auto, buñ ko parce que d'affaires beaucoup ci dossier à à bi dafa bokk ci conseil voilà conseiller wala dafa beaucoup ci ñuy doon l'idée si sauf moi tax dit jox Arfan auto mais Arfan dañ ko à top top du ko ci parce que dafay beaucoup ci complice d'affaires beaucoup ci association de malfaiteurs boobu donc taxu ñu wax kii nga don procureur ou nga don enseignant ou nga don juge nga doon magistrat wala mathématicien xaw je ne sais pas ak lu te donne te nga am ay privilège bu ñu la jot ci dossier à Sarr wi ñu dem ba xam ni que dossier bobu c'est un dossier faux la dara ne ko fa yow dañ la wara top non seulement dañ la wara a luñ la jox ba paré tëj la ci kaso bi hmm. loolu c'est faux ça faut savoir jarul yenen débat il faut pas qu'on s'entarde sur ça dañu wara dem vers des questions majeures questions essentielles fallo nañ jàll ci benen dossier bobu bobu mom bobu du dossier buñu buñu mëna ñu débattre ci jamono bi ni buñu waté dinañu mëna a débattre comme ñëwagul dékul dossier bi sax mais mais euh, seigne Bassirou mom la la wax nga doon procureur wala ancien procureur wala leneen bu la joxé terrain bu illégal dañ ko wara récupérer bu paré top la mais avant ak li servir ak wayam lan la servir lu kenn serviru ok lan la servir lu kenn serviru xam a yow ñàkk respecté sénégalais yi mooy weesul lu mu servir non non non non non il a pu servir quelque chose il était le procureur avant non non non euh, non non euh, le chef le chef du parquet xam nga fallu pour personnaliser débat bi ci procureur déedéet attends Quel waxu fi procureur attends il faut pas essayer ah, non non non doucement mais doucement doucement parce que il faut pas euh, un peu les pédales hmm. tu parles de Serigne Bassirou qui est à l'OFNAC tu parles de Serigne Bassirou qui est procureur la non non non un bien boo xamante ne dañ la kaa jox ci à base de ce dossier là dañ laa war a topp tëj la ci kaso bi ba pare nangu loolu nangu li nga yor mais loolu c'est simple moo tax ma ne la nañu jàll ci beneen dossier parce que dossier boobu ñëwagul bu jowaatee fii dinañu mën a débattre parce que lu nekk ci dossier boobu foog mu leer. au-delà de boobu de dossier. ba mais enfin concrètement ak logiquement lu se sa mais may sa wàllu liggéey exactement est-ce que mën na la stop. ñu jox la ko nga am ko ci légal. boo amee ci li nga am ci sa wàllum liggéey. Hmm. ñu jox la ko ci anam yu légal kenn du la topp <laughs> falu loolu sax jarul question man maa ngi liggéeyal ci média à de média bi. directeur oh, non non non dama lay jox exemple. directeur bi jàpp ni que. Hmm. war naa may les personnels les personnels yi nekk ci média bi ku nekk terrain war na leen may. te yàlla mu ñëw amin directeur 5 TV bi ñu ngi lay ñaan nga may ñu ay terrain hmm. donc. directeur bi jàpp ni que war nañu mën a may ay terrain personnel yi nekk fii ci ci média bi. te mu doon sama liggéey <laughs> mu jox ma ko ci anam yu légal donc xayrul mais man li ma d'accordul ñu jox la un terrain boo xamante ne dossier moo tax ñu jox la ko parce que hmm. da nga nit ci un faux document mais loolu loolu c'est pas légal. loolu dañ lay topp pour complice et association de malfaiteurs loolu c'est simple moo tax ma ne la loolu jarul débat loolu jarul débat loolu yemul sa ci loolu fii Sénégal képp ku am terrain ku ñu jox terrain ci al anam yu la illégal wala ñu jox la kër ñu jox la oto ci loo xamante ne mérité woo ko ci ay yëfu association de malfaiteurs nga ko amee dañ la dañ laa war a topp ci kanam yoon ba pare nangu li nga yor. foofu laa d' accord ak Cheikh Yérim Seck xam naa dinañ ñëwaat ci loolu. voilà foofu laa d' accord ak moom point jarul nga nekk procureur wala nga nekk magistrat wala nga nekk journaliste wala nga nekk déedéet ñu la jor na ko mérité wala na légal ci yow mais bu légalulee dañ lay topp nangu ko dugal a kaso. donc ce dossier risque de faire tomber euh, ay autorités yu bëri. man xaw ma de xaw ma yan autorité ñoo ci laale mais bu ñu fa eggee risque dama ne il y a toujours des risques. ok toutefois bu ñu eggee ci dossier boobu képp ku fa laalee ci anam yu illégal fallu xanaa déggoo ma. Hmm. dañ lay arrêté ba pare nangu li nga yor yóbbu la kaso. c'est aussi simple que ça et banal jarul chercher de midi à 14 heures. Non, Fallo. Ça, ça, ça, je crois que. Ce n'est que ministre de la Justice. Non, non, non, non, non mais quand même. Enfin, ce n'est que ministre de la Justice. Ministre de la Justice. problème. Quand man. Soumane est <laughs> ministre de la Justice. Man, ministre de la Justice. Djoub, djoubol, djoubanti. djoub. Man, ma kaso. dis may wax Ma, kaw man bi ngay parce que sénégalais damay analyser politique damay def sa sama liggéey mais suñu wàccee fii ci plateau bi yoo xam nga ma. Hmm. maa ëpp képp ku ne de sañ naa yor dara nga ñëw ne ko lii laa bëgg ma jël lépp jox la man loolu laa bindoo loolu lañ ma yaree. mais su nekkee ci wàllum jub jubal ji jubanti mais il faut que nit ñi yaru fallu il faut que nit ñi yaru yow mi ne yaroo kenn ni mu yaroo noonu nga bëgg ñeneen ñi yaroo. buñ la dara nga bañ ko jaawale ak sa nga ko diko dundal say sénégalais te alors que lu yëpp bokk la yow nga né yo non yo dang koy jël pour yo yow yow yow ak sa non non non c'est pas sérieux non c'est pas sérieux lolu nit bu ko défé dañ ko corriger dañ sanctionner loolu c'est évident il ce n'est même pas à chercher de midi 14 heures wala di guema masala. masla parce que ñun masla bi moo ñu xaw a moo ñu xaw a retardé ñun Sénégal masla dafa ñu retardé trop amna ay dossier yo xamanté jarul masla dang koy càmbar ba mu leer ni que waji ji liñ koy tuumal ni mom moko def rap ci kasso bi ba pare nga nangul lu mu yor jeex ñu jaal ñu jaadi ñu daal jall ci lenen na nga topp daal ci lenen alors euh, mi exactement, mon exactement que nekk euh, une révélation une tey sénégalais yi ñu koy daal di euh, introgé bu gis ay soulevé par as ki n'a pas ne que moo di Salma Ibrahima Fall Kani moom ki nga que l'ex procureur tey Nek, nekk ñiitu li n'a xam que moo di que aurait reçu ben terrain si li n'a xam que dans l'affaire affaire Adji Sarr boobu ba tey nag ñi xaar li nga xam que la suite de ce dossier allant dans sens

jëmale si li nga xam ne euh, euh, moo di euh, justement ni fu mu toll nii terrain bi nga xam ni itam jot na ko waaw wala déet ay justification yi nga xam ni itam ko daal indi si table bi allant dans sens exactement alors ñu daal di jàll si leneen sans plus tarder ginnaaw li nga xam que moo di mbiru sëñ Bassirou